yey melaw gaaña mooy toj xëtër li lee tax ma waxtaani yaari yëf te waxtaane way baax ña mooy dundu gor ndaxus gor la koy saf lu duufal xolam tërëppi xalaatam tërëp kon defar te nag loola mooy li ma fi bëgg a te waat naa ko wax ji bu sottee defar lu gën nag ca waxtaan nga la nga gis te muy daani kéemtaan te muy doon wér te moo tax ma wax leen ne leen mboole seen na ngeen kaay nu waxtaan ba ngeen déggi mbir na ngeen déglu wax ji te riig seeni xel ci seen noppi xol ndax ñu bañ leen a jar dama tabbi abdul bu leeri biddiw biddiw yooyu dañoo da xoog ay badar te boo seene taaxam ya muy safiram xubbem yaay nuroog niru rang bang wewar garab yaa ngi tàbbal ci noorang na wet maram yaa ngi daw kenn du xiif kenn du mar farem yaa ngi sakkoo tarango yu mel ne ci taarak ci nooy aaj ne tortoori dar ma gis dun ba fara sax fa ay at mat guddeem yaag ba cëg neex ba mel ne i tutur bu tappar kayay dal ci seen dot di sër mu mel ne gorong mbaay tama mbaa sabar ku xam lii xamul woon sa mawtur la xam ku xam lii xamul woon na xam ñetti tur Muhammadu Abdul Karim Samba Diarra ne siiw na ci réew mi te siiw taaxi Ndar ku xam lii xamul woon sama tur la xam ku xam lii xamul woon na xam ñetti tur muhammadu abdul karim samba jaara ne siiw na ci réew mi te siiw taaxi ndar di so pep sëriñ bamba tey waykatam di so pep sëriñ bamba tey waykatam diggante juróom ñaari réew yi ñu wër pexem yàlla moo gën pexem ndaxam fa yàlla yi fexe yàq kat yeggu fa fa yàlla yi fexe raw na bët raw na xel fa muy yokke nit ay bañam xandu fa fa yàlla yi fa leb ña koy bañ fa muy seddaleew yiw ku bon nekku fa fa yàlla yi fa soo def ci yow yiw rëy du diisoo da koy def ñu xëy gis ko fa fa yàllay fa soo def ci yow yu rëy du diisoo da koy def ñu xëy gis ko fa lu seytaane ak nit di te am dafay lu tukkee ci nit nag te say bañ ne fa lu tukkee ci yónneen baak yàlla jëm ci yow loola day ñëw ku bañ randu fa ku yor sa yëfit faw day mujj ñëw te li ma yor faf ko jël sa yëfa ku yor sa yëfit faw day mujj ñëw te li ma yor faf ko jël sa yëfa nasam xel di dal sab xolil sedd yow sa wërsëg lu waay fa fa bit ba ko fa lu waay rëy rëyub cër du yóbbaale kat cërub nit ku bëggit ba fa lu waay rëy rëyub cër du yóbbaale kër cërum nit cërum nit ku bëggil ba fa dagaana kër ak doylu ak yitte yow tewu nag kerug doylu far tëdd fa kerug doylu moo lay fajal naaju lor seral sab xol saw yaram yendu fa kerug doylu moo lay fajal naaju lor seral sab xol ak sa yaram yan lu fa subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi ki may xamal bu wér te di ma may xéewal ci barkeb ki mu xëy jébbal lu dooni xéewalam alhamdulilah yi ki may xamal bu wér di ma may xéewal ci barkeb ci mu xëy jébbalu doon yi xéewalam yéen gaa yi diine jege leen ma jàngal leen te dolli leen xam-xam bu wér jafe leen ma fecci tey ay fas-fasam koo xam ne xam na lii na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam loo ko xam day dolli xam te lii ma leen di bëgg a wax day daggi xol dëggali wax jagali jëf te ku ko wax jariñu fii ak fan mësuma leen a waxi naan masuma leen a waxi leen masuma leen a waxi leen te lii ma wax du waxi neen lii wayu xutbu la du neen yu def way ñu dul kemam naa sant yàlla mi ma may xutbu bu mat mu di ma may di fay ay di dàqi moy ci leeri booti ragalam di ma gisal lu ma gisul di ma yëgal lu ma yëgul di ma xamal lu ma xamul ci duusi géeji xam-xamam di ma amal lu ma amul di ma wutal di ma watul di ma digal di ma tamal nangoo yemoo ki ndigalam di ma yërëm di ma tëfal di ma jariñ di ma teral def ma ma mel ni ku ñu fal ku tabbi pee yi ngërëmam di ma dugal fu mañ musal di ma fegul lu ma ragal ku jëm fi man ak i fetal mu boole diigali walam di ma setal ci waxi bañ bokkuma yeena jëfi bañ mu ne ko tef mu ne suluñ daanu te tuppul fetalam di ma xëccal di ma jañal di ma tayal di ma taay di ma ubbil bunti xéewal fat ma ci biir roqi ñañam ni ma yëkkat néew ma tuy won ma boppam ma di ko way te di ko kañ mu di ma may ni ma yoxoos ci biir xolam di ma fegul pexe mu ñaaw di ma teral rena ki daaw di ma teral sama gannaaw di ma teral sama kanam dib surusiñ bu may fajal di garabal di ma ragal di ma felal lu may sonal mu teggi teg yanu di ma toggal di ma yakkal di ma ràccal di ma sefal di ma tibbal di ma leeral di ma tibbal di ma laal tib yi ñu barkeelu galam di ma toggal di ma yakkal di ma raccal di ma sefal di tibbal di ma laal di ma yi ñu barkeelu galam di ma bégal di ma seral di ma xëccal di ma dalal di ma fayul di ma moyul kenn du ma yab fi kanamam bu ma yeewee kenn du ma yab fu ma fu jëm du ma gannaaw sama ayib xanaa na meel guñ ma namu sama ñoñi dunu ma ne ki ñoom duñu layib sëriñ bi moo dajale yëpp beral nu cër bu ñu gërëm li mu ma may ma di ko am moo ma ko may ma di ko am li mu ma wax ma di ko xam moo ma ko wax ma di ko xam li ma wan ma di ko gis moo ma ko wan ma di ko gis te ku ko gis ne ku ko gis ne ku ko xam ne ku ko am may na ma lool danaa ko wax may na ma lool duma ko wax may na ma lool man mu ko wax ak ba ko ñooya moo ni wax man Samba Jaara maa gërëm sama sëriñ danaa xorom woy wi mooy ci waa këram ñoom ngërëm ñoom xorom Cheikh Samba Diar Mbaye neena Cheikh Samba Diar Mbaye neena Cheikh Samba Diar Mbaye ngi bu mat jóglee naat di yeyi mat ku jéem a gantu na ni mot di wey taxamtil fu mu jëm hëddiya bamba ko jago hëddiya bamba ko bamba ko jago ku def ni moom di ko jago ku ko deful bu ko dogo bàyyil moo tey mbiram hëddiya bamba ko jago ku ko deful bu ko dogo bàyyil moo tey mbiram li tax diya moo ko moom laay bëgg a wax ne mooy borom moo ko jagoo du seen morom ni leen gannaaw mu ne kanam yi fi ci biir na ku ko xam na dal di doy loola mu xam ku ko xamul ma wax mu xam jébbal ko ruu bakkanam ku faatu moo fay njëkk a teew buñ koy julee mu di fa teew nuy rob moo ànd ñoom di teew ñu dem mu des sontu la Cheikh Samba Diar Mbaye Leera Cheikh Samba Diar Mbaye Leera Samba Diar Mbaye Leera Cheikh Samba Cheikh Samba Diarra Mbaye nee na jóg leen taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen dal di xam ne borom Touba ay borom Touba jóg leen taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen dal di xam ne borom Touba ay borom Touba jóg leen taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen dal di xam ne borom Touba ay borom Touba bu leen ma tànqal na ngeen cellal ku jóg na ni cell sa bañ di tànqal tànqam lu ngeen xam tey borom Touba te bañ ci tànqam lu ngeen xam tey borom Touba yoneen ba may na ko yooyu yoneen ñoo ko amoon mu doon yu tas tey da koo booleel borom Touba mu doon yu tas tey da koo booleel borom Touba baayu mbindee fi jikkoom yoneen ba moo ko jogo mbooloo mi yërmande mooy jikkoy borom Touba mbooloo mi yërmande mooy jikkoy borom Touba xam-xam ba siisaamoon ci yàlla muy lu tasoon diggante gaaña la booleel tey borom Touba Idrissa yoon nen ba daa dëkk durus abadan googee durus moom la jagleel tey borom Touba googee durus moom la jagleel tey borom Touba njambaar ga noon borom fergaar gu rëy ga jawoon

maanuk suway borom maanuk borom Touba maanuk suway borom Touba xarit ga maam sunu Ibrahima Silva moon xarit ga la yoon neen jox borom Touba lammiñu yaaramu Ismaila ngarimal Isaqa boole na leen jagleel borom Touba Isaqa boole na leen jagleel borom Touba hikkam yolootun jagoo woon ak yaam ca gannaawam ak yi jëkkoon la jagleel tey borom Touba. ak ya jokkoon na jagleel tey borom Touba seetlu wakiirlu ko dal yanqoo mbir ma dikkal ko moo ko dal mbir ma yit dikkal borom Touba leerug bi diiw cosaanal taar ba Yuusufa nooru jalaal la ko feeñ ànd ak borom Touba nooru jalaal la ko feeñ ànd ak borom Touba taawiil ja ak faddu ga dambam ya boole na ko serok andaar me tey jagleel borom Touba kattan gu ga ca Muusa ak waxante wa ak jihaati yuusu tey jagleel borom Tuuba dabbuusu Muusaa wa moo dun xaafi ay dara tey dun xaafi ay dara mooy junjub borom Tuuba dabbuusu Muusaa wa mooy dun xaafi ay dara tey dun xaafi ay dara mooy junjub borom Tuuba dun xaafi ay dara mooy junjub borom Tuuba bun xëfee dara mooy junj borom Touba wakiil gu mat gaca Ilias muñ gu wér gu rafet gawoon caayoo ba yoo yaa nga ak borom Touba xam-xam baam ca ku baatin ba moo ko jagoo giijug borom jënoo mooy giijug borom Touba giijug borom jënoo mooy giijug borom Touba taaluuta dikk na maal gaag na mu tëj ñikki nii la maalikun du ki du ki biir tenqal borom tuuba daawuda rey ga mu rey jaaluuta rey na ko jaaluuta mbakkan ruuy jug andee borom tuuba baatam ba daa tari la bamba tare furxaani amur mi njiital borom tuuba Cheikh Samba Diarra Mbaye Leral Cheikh Samba Diarra Mbaye Leral Cheikh Samba Diarra baay catal xalimaam nguurug Souleymane ga mooy nguurug borom Touba nguurug Souleymane ga mooy nguurug borom Touba buur yàlla may na ko xéewleel baa ga jagleel may sag may la jeex tali saa bibtil borom Touba mihrab ma Zakariya nekkoon di jaamu boromam moo ma tey moo di mihrabu borom Touba jugam nga waxtu muy saba la tàmbali ko ba woon ba tey loola mooy mbaaxu borom Touba ba woon ba tey loola mooy mbaaxu borom Touba musal ga bur yàlla jagleel doomi Zakariya ya musal googa mooy muccug borom Touba cofeel ga bur yàlla jagleel daan yàlla dëddug masiiwu ga mooy dëddug borom tuuba dëddug masiiwu ga mooy dëddug borom tuuba dëddug masiiwu ga mooy dëddug borom tuuba te tey dajog weñ lësul xarnayni xëy sa xalaat te tey musal la sëriñ tuuba saxal tuuba alhamdulilahi rabbil alamin baril ak cant war na nun nun soppey borom tuuba buur yàlla mooy sunu buur yonen ba mooy sunu njiit bambaanu boot bus na nun soppey borom tuuba Touba Bamba nu boot bis ba nun soppey borom Touba buur yàlla mooy sunu buur yoneen ba mooy sunu njiit Bamba nu boot bis ba nun soppey borom Touba Cheikh maasam Cheikh Ibra Fall raw maasam Cheikh Ibra Fall raw na Cheikh Ibra Fall raw Cheikh Ibra Faal raw na maasam te di fu ko jot Bamba ko sempi mu raw yaaram binam faal inna suyooxa waasaaba suyooxu maal ñooy say jaraaf nga di seeb yow yaaram nga nam faal si wal mbakkiina um saada abadan nga xam ne doo ñoom du yow yaaram nga nam faal jamiu jiidika fii juudin wa fii karamin léewoon nañu ak nga nam faal lakkal wilaaya kalminatu bay na naasu zaahiratun sag wàll yoo njëkk a feeñ Cheikh Ibra Fall sag wàll yoo njëkk a feeñ Cheikh Ibra Fall sag wàll yoo njëkk a feeñ yow yaaram nga Cheikh Ibra Fall yaaram nga yow yaaram nga faal yow yaaram nga faal lam yam doo soara kullul kiraami ma ma wayla man yaa ma saf Cheikh Ibra Fall mooy la man yaa ma saf yow yaaram nga am faal alhamdulilah man jox naa sama yaajo xutbub jamono bi feeñ muy faj sama yaajo ma jékki baa may taxaw ma yew baa may nelaw mu noppi baa may taat man muy faj sama yaajo diggante àll ki kër laa def fi man mu di benn sunu diggante du dog man muy faj sama yaajo diggante witt ki wittal ak beroog jaxasoo fu ma fi tol di ko woo faj sama yaajo yéen gaa yi diine bu leen daggee su ngeen di nelaw te ngeen a yeewu ni jar dem seeti gànnaar te xam ni Cheikh Bamba mii sellam gi moo ko jagoo la gaañalaal musu koolaal bir na gànnaar la gaañalaal musu koolaal bir na gànnaar la gaañalaal musu koolaal bir na gànnaar rusu la laal lañu laal ndax moom du ragal a laal day jombalaal lañu laal jébbal ko gànnaar rusu la laal du ragal laal day jombalaal lañu laal day jombalaal lañu laal jébbal ko ga gànnaar la ñuy defar di ko terloo loola moom la fi teg mbuubi ti mayam la ñuy for fii ba gànnaar maseef na leen jiiñ lu néew néew moom maseefu ko jiiñ siixloom gi àdduna mooy waxtaan ba gànnaar loom gi àdduna mooy waxtaan ba gànnaar subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin barke Sëñ Tuubaa yal na nangu الرحمن الرحيم جزاك باقي لدى الأهل والبلاد وباركا فينا متى متى مسير يا جنبamba الشيطان الرجيم فدم على مصرع بعين القلب سيرة كما يشاهد ما تعتلك لا صابتي وساداتي كل ما هدوان ربي أرادي وسادي سبحان ربك رب العزة عما هو المتعال والكل عليك سلام الذي